jébbalee boromam ca Touba enquête yéene kaay ne jàmbaar dem na kon dëgg dem 24 heures yéene kaay ne la vie sans ABC allahu a avocat la woon nekkoon taalibe Serigne Abdou Khadr ke jébbal nañ ko boromam ca Touba Le Soleil yéene kaay ne mission ba jeex na moom régulateur ba président Macky Sall day waaw nee na maa ngi delloo njukkal nit ko am ngëm-ngëm sama àndandoo jàmbaar ja lii di ne maître Aline Badara Cissé day waaw ku ma sa libre la ba fi jugee laa la wax kenn moo ma ko enquête yéene kaay ne mës nag laa la wax Mimi Touré ci critique yéene kaay waaw nee na nit koo xam ni ku baax borom xam-xam dem na Sud Quotidien ne Alioune Badara Cissé day ba illaa yawmi diin Walf Fadjri ne tey ma wax leen na kat mooy ABC A ba Z Direct News ne Alioune Badara Cissé day dem na waaye xam ngeen ci lan la doon dund benn dëggu daa dëggu woon de ñaar justice ñett bëgg réew xam nga Alioune Badara sa fan la bàyyi woon noppam bii dëggu rek dama ne la dëggu woon googee waaw tax na nag ba ñenn ñoo xam ne ñoo bokkoon ak moom parti sax daan ko sànni ay xeer allahu bar léegi nag ma nga bax te jamono joo xam ne ñu ngi jooy doomu ndar googee waa ndar waaw tribune yéene kaay ab gaal dee fa suux maar di daali libération yéene kaay ne gaal gu suux googee ca ndar day ay bakkan yu xeeñ de maar di ak benn ci ay doomu aadama yoo xam ne dañ ne may réer kenn gu su leen ba léegi ni ñeent daal lañ forcé ñoom kenn solul woon gilet laa wax bilaal sek daa rëcc ca gaal ga ci tribune yéene kaay waaw nee na laa gisee samay xarit di dee nii laa gisee ki nga xam ne moo ñu doon yóbbu ma fay ko ñeent fukki junni di dee la ilaha bari na ci réew mi de Abdoulaye Sow ministre urbanisme ci bi gi ca Kër Massar am na ca liggéey loo xam ne baaxul terminé rek kaa ne gis nga inondation ci diwaanu Touba ak ca Mbacké waaw Serigne Mountakha Mbacké xalif général murid ya lu tolloo juróom fukki million la génnee daal di koy may ñi xam ne ñoo le allahu akbar vox populi ne Touba waaw porte-parole murid ya day féetali waat na xamle waat na ne màggal Touba gi le day am waaw Serigne Bassirou Abdou Khadre nee na dee moo ñu ko gënal santaane Serigne Touba ñu ba ko dama ne dee moo ñu ko gënal dara mënta dox suñu ndigal la moom Serigne Touba du kenn te du lenn mooy tere ba du am le màggal est un ndigal de Serigne Touba que rien ni personne ne peut et ne doit empêcher sa tenue dëgg la de porte-parole lu xalif généralu yamu ca parce que Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké ba lay sa nee na xale yi nga xam ne nag ay tuutànk lañ te nekk sareet yi ci Touba gi la loolu war nañ koo dakal benn ñaar essor bi ci salle d'entraînement yi dajale ak ay góor ak ay jigéen jaxase leen ñuy déglu musique war réew nasaraan yi 24 heures tere yooyee sëñ Bass wax day waaw bokk na ca nag dugg ca jumaa ja di filmer sa bopp ak photo yooyee moom tere nañ ko léegi laa la wax cay mbas mi le réew mi quotidien ne mbas moomee waaw corona gi garab yi nga xam ne maanaam boo ko naanee mi ngi dikk de léegi garab yi ñëw kañ la nguur gi ñëw ci waa teer bi le lii quotidien ne express régional boobee waaw ñi nga xam ne nag ay impacté mbir mi dalee a lor la ñuy sàkk ci nguur gi lé mooy juróom fukki milliards laa xobar Walfadjri ne waaw fañ nekkoon lañ nekk ba léegi ni day aha waaw waaw ñi ngi sàkku laa wax nii daar daar appel d'offre bi ñu daal di koy lancé waat nag laa wax waa ECOTRA yemuñ ca parce que daal dinañuy bind nag banque africaine de développement ngir mu bàyyi xel arrêt bi nga xam ne cour suprême daal dina koy bind coowal ECOTRA googe évidence seen kaay askan wa nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ci kanu laay googe waaw lañ doon xëpp day mujj dañ koo def aha waaw waaw dama ne ko jox wa kay am na ay yoo xam ne sax jot nañ affaire ngay tàkk nañ ko de tribune yéene kaa ne affaire ca Parcelles Assainies waaw gay l'original day démissionné na naar di taali bàyyi na affaire ba pare nag fekki na opposition ba évidence yéene kaa ne ca Thiès Nord waaw Lamine Aïssa Fall day la ca mairie ba nee sama candidature askan wee koy sàkku demande population bi la Dakar Times de sondage génn na ca Guédiawaye de ah, ah. dama ne la PDS grand parti Pastef ak PUR ah bu ñu àndee ak waa GLB di Guédiawaye laa bokk waaw Ahmed Aïdara Gagné Alioune Sall du samay kàddu de Dakar Times la critique yéene kaay ne relance dialogue politique ba day Serigne Mbacké Ndiaye waaw nee na nañ leen wut nag ab profil boo xam ne ñëpp a waxtaan ba juboo muy nguur gi ak opposition bi fii ñemee nañ fee waxaat dialogue politique Mamadou Ndaw directeur de cabinet ministre transport aérien day Alioune Sarr waaw nee na yow Serigne Mbacké Ndiaye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 jaajëf